Pape maa ngi lay nuyu. Mhm. Euh, di nuyu invité yi euh, di nuyu téléspectateur Walf yëpp. Euh, ñu ñaan yàlla rek lépp luñ fi wax mu doon lay jëriñ askan wi. Mhm. tey moom actualité judiciaire bi dañ koy leb ba mardi prochain. bon dañ koy leb mais benn information. Mhm. <coughs> boo xam ne dafay daanu si tout à l'heure ay 18 yooyu. info waaw. mooy arrêt bi nga xamante ne cour suprême da ko rendre diggante. Euh, groupe Walfadjri contre état du Sénégal contre état du Sénégal. Mm-hmm. mooy en juin deux mille vingt trois le ministre de la communication de suspendre woon signal Walf TV. signal bu Walf TV. Mm-hmm. Walf décision bi nag dafa jàppoon ne dafa euh, yenn disposition code de la presse bi. léegi bu ñu njëkkee def euh, procès bi mooy référé bi ndaxte dañu introduire ñaari kii ni <coughs> requête mm-hmm. benn bi mooy nañu gaaw. Euh, de affaire bi pour waa fi mën a reprendre euh, activité am. Mhm. ci trois jours euh, minimum ou cinq jours. mais juge bi dafa newoon ne comme décision bi l' administration commencé na di ko exécuter bon c' est insensé mu koy suspendre mais da koy verser dans le fond. Mhm. fond boobu noonu la ñu doon kii nii le 11 avril bi passé ci la arrêté bi génn. arrêté bi bu mu génnee. le 9 mais lañ ko envoyé avocat au groupe euh, Walf bi mooy maître Cheikh Amadou Bamba Silla mhm. ñu wane nag ci biir arrêté bi euh, juge de de la première chambre administrative bu cour suprême dafa annuler décision bu ministre de la euh, de la communication maître Moussa Bocar Thiam mhm. tegoon Walf maanaam suspendre kii bi signal signal bi mhm. nee na <clears throat> mesure boobu noonu dafa violer article premier ak vingt six Euh, du code de du CNRA. Mhm. maanaam ministre bi def dafa outrepassé compétence am. Euh, nekkul moom moo waroon a demande ni suspendre euh, signal bi mais CNRA moo ko waroon a def te CNRA aussi bu koy def dafa war a def une mise en demeure. préalable waaw préalable ba pare bu ñu bañee mu soog a Euh, kii suspendre euh, euh, signal bi quoi. donc donc lii information bu bees la bokk ak bi ñu fi doon dégg jamono yële. non non non bi bu bees la. bi décision bu bees la boo xam ne cour moo ko joxe. moo mooy Walf moo am dëgg ci ministre bi. d'accord maanaam ministre bi amutoon compétence di suspendre signalu groupe de presse. ok. CNRA mi nga xamante ne mooy organe bi ñu fi teg muy réguler audiovisuel bi moom moo waroon a constater que ne Walf violé na yenn disposition code de la presse bi. mu alerté ko maanaam mu mise en demeure ko. ndax yow yaa ngi violé ay kenn mu soog a bu wàll fu bañee mu soog a suspendre. Euh, d' accord bien ko décision bi survenir na tardivement parce que fekk na Walfadjri subir préjudice ba noppi. mais quand même reste une jurisprudence. oui reste une jurisprudence mais ici euh, aussi l' administration. ñoom administration de Walf mun nañu saisir encore la Cour suprême cette fois-ci c'est pour réparation, réparation. du préjudice euh, subi quoi réparation à hauteur du préjudice subi voilà, par le groupe Walfadjri ñoom euh, oui ndaxte direction bi dafa estimé que ni lu ñu tëj euh, signal bi jour yooyu noonu même si buñ ko yegguloon ba le 30 juillet euh, perte na ci ay perte yu bëri mhm. maanaam publicité yu mu waroon am yenn mhm. convention yu mu signé woon ak engagement contrat yi mu yooyu maanaam loolu yëpp da koy perte te yooyu boo ko estimé presque sa ay milliards millions et la mhm. yoo xamante ne état daf ko war a fay léegi ñoom dañ ne d'ici quelques jours dañu attaqué a décision bi mhm. pour que état réparé préjudice bi nga xamante ne ah, dossier boobu topp ko de pour que réparation boobu état bi def ko ndax ñu mën a réparer suñu studio bi la <laughs> ko jaajëf alors kon dañuy daal di xuus rek ci li nga xam ne moom mooy waxtaan bi mais balaa ñuy ñëw ci réinsertion sociale ñëw ci détenu <coughs> politique yi ñoom seen bopp ñu rafraîchir fi jotoon jaar maanaam ñoom seeni lim yan kaso la ñu nekkoon ak ñan ak ñan ñu jàppoon dans le cadre loolee nga xamante ne moom euh, arrestation en masse yi nga xamante ne na fi diggante ak 2024 hmm? kon ñu dem ci nga xam ne moom bon rafraîchir mémoire yi. waaw ñu mhm. détenu politique yi nga xamante ci manifestation politique yi entre presque yooyu deux mille vingt a eu des arrestations mais seulement yàgguñu. Mhm. maanaam nombre bi ñu ngi ko estimé ci à peu près deux mille yi ñi nee nañ ñi nee nañ manque na mais deux mille yi moom matoon na deux mille personnes yoo xamante ne dañ leen arrêté woon dans le cadre des actes des manifestations yooyu noonu ñi ñi ñoo ngi leen arrêté woon sûreté urbaine moo leen arrêté ñeneen ñi dig ñeneen ñi section de recherche yeneen ñi BIP yeneen ñi GIGN mm-hmm. ci prison yi ñu leen euh, tëjoon ci 17 prison la ñu leen tëjoon benn bi mooy Rebeuss Cap Manuel pavillon spécial Camp pénal Liberté 6 Sébikotane Rufisque prison Euh, Thiès Tivaouane Diourbel Tamba Ziguinchor Kaolack Saint-Louis Mbour Kolda Koupentoum maanaam ci prison yi 17 prisons yi am Sénégal yëpp fu nekk arrêté woon nañ fa ay jeunes ak ay militants yoo xamante dañ jàpp ne dañu favorable au parti PASTEF. ñu mhm. incarcéré leen euh, foofu noonu. ci yenn ci infraction yi leen doon toppee euh, mën nañ ci lim association de malfaiteurs. waaw mhm. mën nañ koy ki ci kii nii. ci wàllu kuréelu def ko tu ñaawte. waaw atteinte à la sûreté de l'État mooy mhm. ay nit ñi nga xamante ne dañ doon organiser wu pour kiiw euh, maanaam xaw ma. noonu mën nga ko tudd ci français rek jàll. voilà limal rek jàll atteinte à la sûreté de l'État terrorisme.